maaleykum wa rahmatullah mbokk internet yu seen football TV ñuy naa leen bu baax a baax ziar leen tey nag damay ñëw mercato des Lions euh, li fi jot a xew ci xibaar euh, ma dajal leen ko wax si sama xalaat ak sama gis-gis euh, dama koy dooree si Boula Dia bi xamante ne officiel na signé na cinq ans Villarreal Liga espagnole nekkoon Stade de Reims nekk di def saison yu excellent au niveau de Ligue 1 deux saisons yi yëpp euh, bu laaj franchement ay Brighton lañ doon waxoon nañ fi Newcastle wax nañ fi Olympique de Marseille wax nañ fi ay équipe yu nekk Turquie mais dafa jël décision dem fële euh, Villarreal mu dem équipe bu xamante ne franchement entraîneur bi fa nekk xam na championnat France

surtout par rapport ak ses concurrents au niveau de l'équipe nationale du Sénégal parce que mon bu joué Ligue des Champions euh, championnat bu bees aussi tamit mooy li may wax ñun Sénégalais yi bëri ñu non noonu euh, on te parle de Youssouf Sabaly bi signé Betis Séville euh, ki nekkoon ay baar nekkat faut pas pour Diop yaa Amath Diédhiou bi xamante ne xetaf moo moom peut-être que mayor ko donc bu ñu amee beneen joueur bu xamante ne dem championnat Espagne dañu neex loolu léegi bu ma jógee foofu damay wax Ariel Mendy Ariel Mendy moom mu ngi signé Clermont Foot xam moo ngi Servette au niveau de Suisse dem championnat bu xamante Ligue 1 française man loolu laa doon xaar franchement parce que gis nañ ko Ligue 2 française au niveau de Lens au niveau de Orléans voilà dañ doon xaar mu jouer euh, Ligue 1 française pour ñu xool euh, quand même comme mooy Arial Mendy maintenant nag Aliou Cissé bu fekkee am na lu ko mën a wax mooy que à chaque fois day woo Arial Mendy mais mosuñu ko gis mu tekk titulaire je comprends pas pourquoi le gars tout le temps dañ koy convoqué parfois dañ koy convoqué et jamais mosuñu ko gis mosuñu ko may temps de jeu beneen bi espérons que avec euh, équipe bi mu dem xamante ne premier la parce que Ligue 2 française la nekkoon mu yee on va voir lan lay boy bi lan lay joxe muy Arial Mendy bu ma jógee boobu damay wax Kalidou Koulibaly Kalidou Koulibaly voilà jamono bi Everton lañu wax wax nañ fi Paris Saint-Germain man bi ma gisee franchement information comme quoi dafa bëgg dem Paris Saint-Germain nag ko bëgg jënd man comprendre moi parce que Paris Saint-Germain jënd nañ Ramos et que déjà que rek français au niveau de boo demee si plateau télé ñu bëri ñu naan Ramos bu nak ndax pempelé dañ koy ban nak dañu jouer trois défenseurs donc ñu wax né Kalidou day dem feulé Paris Saint-Germain c'était compliqué pour moi di que y a Cahier sur le banc y a Abdou Diallo y a xam nga voilà donc jamono bi nag Everton lañu wax parce que Benitez mo doon Everton Ancelotti del Real Madrid on dit que Benitez daf ko def priorité parce que Benitez da ko xam bu baax ba au niveau de Napoli man nak ma ngi espérer ba pourquoi pas mon Real Madrid avec euh, Ancelotti bi Ancelotti xam na ko bu baax baax Real Madrid perdre une Ramos xam nga voilà plus Koulibaly expérience moo ngi il a le talent potentiel expérience 30 ans donc euh, pour mon équipe idéale bi c'est Real Madrid xam pourquoi pas mu dem mais jamono bi Everton lañu wax dinañ xol nak semaine yi di ñëw nak loolu dina confirmer am déet bo jógee foofu damay wax Abdou Diallo Abdou Diallo euh, buma lié ci si taskatu nek France surtout euh, journaux parisien plutôt ñoo ñi xamal ne Abdou Diallo ku metti Pochettino dafa am ci mom confiance daf ko bëgg a teg foofu ko fa pourquoi pas def ko doublure bu Bernat parce que jamono bi amaguñu le trabus on parle de Théo Hernandez hein. on parle de Théo Hernandez manam Raky Hernandez bi nek Milan AC passé on parlait que ne euh, bëgg nañ ko jënd parce que Kurzawa lañ ko bëgg a jaay au niveau de championnat anglais te waral Turquie affaire yooyu noonu ñu wax yooyu en tout cas am nañ ci moom confiance non seulement euh, dafa polyvalent mën a jouer comme mën a jouer latéral gauche ba tax na ñoo ngi ñuy xamal ne Pochettino bëgg na ko euh, ci groupe am bu ma jógee foofu damay wax Famara Diédhiou Famara Diédhiou on parle de ay équipe yu nekk euh, fële championship ñoo koy bàyyi xel pour jënd ko on parle ay équipe yu nekk fële MLS la ñu waxoon mais jamono bi Nottingham Forest wax nañ ko fii moom ak Alassane Dawan ah, parce que Alassane Dawan mu ngi nekk këramu groupe au niveau de Turquie wax mais jamono bi Nottingham Forest nañu wax noté bi nga euh, de euh, au niveau de Turquie quand même li mu wane yëpp ñëpp gis nañ ko loolu moo tax sax bu ñu woo ko équipe nationale du Sénégal et que xam nañ ko bu baax a baax bii que football na Dakar que si championnat bi. a ah, anglais yi italien ñu koy dégg fu nekk récemment nii bi fu mujj c'est plutôt Atlanta. ñoo ngi wax ne Atalanta bëgg nañ ko jënd Atalanta gis nañ ñu def deux saisons yu mujj au niveau de Serie A xam nga ak entraîneur bu xamante ne voilà nice rien à nag waa waa Metz dañoo xam loolu dañ ko bëgg a prolonger contrat dañ ko bëgg ko prolonger contrat parce que entraîneur yi entraîneur tamit daf ko bëgg dispositif tactique am daf si am solo gis nañ daaw quand même saison bi mu def au de Metz ba tax na ñoom bëgguñu ko jaay jamono bi ñoo bu fekkee pare nañ pour jaay il faut nga génne yenn somme yi et que ñoo bu ma jógee foofu damay wax Ismail Jacobs Ismail Jacobs moom bosom officiel na signé na Monaco c' est clair euh, jóge na fële Allemagne Bundesliga ñëw euh, Monaco signé na fa et voilà nekk benn joueur bu xamante ne yàgg naa wax ci moom bëri na ay vidéo yu xamante ne moom seen pour ñi ko a xam donc moom moom c' ba tax na nag ñoo ñuy wax Fodé Ballo-Touré Fodé Ballo-Touré ku maytul mu def voilà Fodé Ballo-Touré jamono bi ñoo ñuy wax ne ku maytul mu dem Milan daanaka ndaw la ñu wax ne moo si des sénégalais yu bëri commencé woon nañu tiit euh, même man dama la question nag bu demee foofu sûrement doubler les doon ah, parce que Théo Hernandez m'a fa mais xibaar bu vous moo fi comme quoi aussi waa Paris Saint-Germain dañoo bëgg jënd Théo Hernandez d'ailleurs ça wax nañ une jox nañ benn le bi loolu fi foot mercato moo ko xamale Milan ñoo bañ mais waa waa waa Paris Saint-Germain dañu bëgg jënd bon si toutefois bu que euh, Théo Hernandez day dem foofu mën na un titulaire maintenant jamono bi bu fekkee dafay dem doublure les doon parce que gis nañ quand même saison bu Théo Hernandez du côté de Milan AC donc voilà li mooy xibaar yi beneen xibaar boo xamante ne mën naa leen ko jox c'est plutôt Boubacar Camara Boubacar Camara euh, démb la ñu jox benn xibaar comme quoi waa Monaco doon joxe 30 millions d'euros pour euh, pour jënd ko le gars il reste un an de contrat wa Marseille ñu ngi koy prolongé boobu léegi ñu ngi ko tegal xam nga table bi tégal nañ ko contrat pour mu mën a prolongé Olympique de Marseille parce que Olympique de Marseille pare nañ pour jaay ko mais ñu ko jaay quand même seen concurrent bëgg nañ ko jaay ay Milan si doon naka laaj la jo doon naka laaj wala ay équipe nekk Angleterre plutôt ñu jaay ko ñoo moo leen gënal foofu ñu jël benn joueur bu xam ne dañ koy jaay seen concurrent direct bu xamante day xëcc ak yow Ligue des champions muy Monaco donc voilà lii moo nekk ay xibaar si mercato bi euh, donc mbokk yi nag ci commentaire da ngeen may wax seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaay jëfal nag bu baax a baax di wax ba beneen sur Senfootball TV